Kulu Daaru Salaam nom d'artiste la quoi Pape Coulibaly ñu naan Kulu Daaru Salaam mhm. bon artiste sant xam mais li may gën a def mooy musique internationale quoi. bon immigration nag boo moo ci wax day kii parce que récemment génne naa benn morceau bu tudd immigration clandestine xam naa fii ak un mois bi dina commencé daw ci ci réseaux sociaux ak ci télévision sénégalaise yi incha allah dinañ ko képp mais Kulu fan nga nekk ci Europe yow fan nga nekkoon. bon voilà bon question parce que nekk noon na itali quoi jaar naa France aussi Saint-Lazare jaar na Saint-Lazare jaar naa euh, tamit Compiègne mm-hmm. Compiègne benn ville ba nga xam ne ville bu nekk France am na royal jaar nañ fa mais man particulièrement maa ngi nekkoon Italie Milan Lecco mm-hmm. Lecco laa nekkoon quoi mais def naa Sardinia wër naa foofu un peu parce que def na fa deux ans mm-hmm. Italie nga gën a yàgg waaw fa laa ñaata at nga fa def deux ans def naa fa deux ans deux ans waaw comme bon

C'est tax bon ma Je ci euh, morceau ba nga je sensible d'ailleurs sax sensibilisation ok deux ans Italie tey je euh, frères yi je wax mu que Sénégal je parce que il faut ma Europe pour est-ce que force la je Europe non non Sénégal je mais Europe tamit hmm. parce que Eldorado bi de sax da ngay gis tubaab am Sardinia je me rappelle da gis tubaab boo solo nice parce que man ak artiste yeeg yooyu noonu dañ la des fois dañ ma doon jaagal ak américain parce que bulu yi li ñu naan bulu loo mooy la la waaw waaw waaw gars yi dañ naan un un un immigré mhm. qui vit en cachette mooy bulu boo xoolee ci dictionnaire fa dañ la ko wax maanaam kuy amu ay papier comprends nga ne wala mhm. parce que man maa ngi naan bu maa ngi am naqar bu ma gisee ku jóge Thiès wala Dakar waa ci fi bees doon Dakar amoo sa jour nekk au jour Dakar la lay woowee quoi bon yow imagine toi Italie nga dem déggoo làkk bi mhm. ba pare boo jaay il faut nga dégg làkk bi pour mën a business ñaara fa am ñaara si problème parce que mhm. dafa am dafa am soit ñu jël la ngay liggéey te loolu il faut nga mhm. que loolu da ngay jaar ci yoon bu légal da ngay jaar ci maanaam mariage maanaam regroupement familial ñëpp xam nañ ko mooy ñi nga xam nañ faa nekk bëgg seen doom seen jabar ak yooyu wala ñu soratoria maanaam gars yi benn léegi loi bu génn ñu may ay kayit nga daal di ja yi jaaree fa entreprise nga daal dem nga am ay kayit mooy toujours yooyu ñu ngi doon séjour yi nga xam ne boo koy renouveler da ngay ay contrat comme ça nga ñu ne université boo demee France yi jàng sax un may renouvelable mhm. léegi kayit boobu bu jeexee il faut nga indi sa prescription pour wane ne yaa ngi continuer jàng ñu mayaat la boo bu ñu la a renouveler deux ans yi mhm. da ngay sa contrat wane ne contrat ba tey yaa ngi ci usine bi di liggéey ñu mayaat la mhm. léegi bu dee nag kayitu mariage moom peut-être boobu ne wala indéterminé te loolu da nga fay yàgg yooyu noonu kon kayit dafa jafe ñu ci ëpp soit soo mariwul rek tubaab doo ko nopp sax da ngay marié moom pour am ay kayit wala nga marié ab sénégalaise ay kayit quoi pour am ay kayit mooy mariage blanc mix mooy mariage blanc moom la ñuy wax mariage blanc ok mariage mix quoi mhm. blanc mooy lu xam ni baaxu maanaam lu fóolu quoi li nekk ci suuf waxuñu ko quoi intérêt rek intérêt voilà. Ah, parce que yow da nga bëgg euh, tey takk tubaab bi. waaw ngir mën a am ay kayit foofu. voilà ngir mën di fa am dara ngir mën fa yaatu. voilà loolu moo tax. am na ku ma doon nettali nee na moom da doon jaay ci seddaay bi noonu loxoy congelé na. Mhm. mu bëgg a saw il a fallu ba muy ubbi braquette yi mu saw tubéy ji mu kon loxo yi mënu ko dafa sedd ci sedd bi la woon moo tax ma ne fii jaayam hiver day dëgër këcc maanaam jaay bi du dox mm. gulu boyta rek mooy sa dëj ndax jaayam hiver fii day këcc ça veut dire que été bi boo xoolee particulièrement yi loolu jarul sax wax sénégalais ko xam gars yi dañuy préparé naan dañuy été ji mm. ça veut dire que yaa liggéey fabrique détail yi usine mi ñu doon jëlee amatul pratiquement parce que dafa amoon crise 2008 mm. moo woon ba wàññeeku woon na sax après avant fièvre bi crise bi économie bi basculé Europe teraluñu ay immigré xam luñu daal seen bopp bien vrai que immigré italien dañoo immigré woon États-Unis ñëw tabax seen dëkk immigré du fi deñ mais immigré ba xam ne da ngay risque sa de di dee ci géej géej jarul sax wa da ngay dee mhm. bato yeeg yooyu doon chance donc mais ñi ñuy dee sax waxuñu ko maanaam chiffre yi sax waxuñu ko comme naa léegi nag yow boo ko demee mhm. nga war a dem pour nekk à jour mhm. maanaam am ay loolu xam nga da ngay di dem di jaay da nga nekk clandestin clandestin da foofu na naa la bo maanaam gars yi dañ doon wax naan été bu ndaw mooy da ngay maanaam euh, Noël bu doon ñëw mhm. gars yi di jaay baaba man baaba na mooy mbaxane yeeg yooyu noonu ak seen yëre xonk yooyu ak seen guirlande yi mhm. nga am tuuti weccit mhm. wala mooy taw nga jënd parapluie yi mooy su kii di ci de di ci am loolu na mooy jaayum ab jaayum hiver quoi maanaam sedd bi bu ñëw noonu jaayum hiver bi dafa dëgër da ngay gis benn parking gars yi di jaay ay kawas ay affaire ah, a toog rek bañu li parce que jaay bi dafa dëgër Euh, boo été woon ba pare da ngay dem complet huit raisin man ba ma bind texte bi damaa dem huit raisin mhm. dem été été wu ma carrément nii mais damay dem été jaay la xool pour dëkk bi dem gars bu ñuy ligue des champions bu ñu jaay sart ma jaay parce que dama ko bëggoon doon di ko bind mhm. mu des benn affaire ma tettali paa ba rabal ko texte mu ne ma da ci yokk benn affaire mooy ñun ay paa lañ am nañ soixante ans mhm. ba ñuy doog a ñëw fii y avait du boulot daf mooy l'Eldorado bi nga doon dégg Europe bu njëkk ba. ok xam dafa amoon xaalis jamonoy liira moom. beneen affaire mu ne ma mais euh, maanaam euh, maanaam amoon na boulot mais yamul amuloon ay kër. Mhm. kër ya nga xam ne tubaab bi y avait pas l'intégration. ok xam nga la ma la maanaam da ngay mbor sa effectivement man da ngay romb da ngay gis maire tubaab yi seen fenêtre ah. ñu lay xool. boo ñu gisee surtout ñu woo carabinier yi daan ne am na benn noir bu nekk dañoo rase quoi. ok après sax lañ commencé di di intégration beeg di leen jox ay appartement parce que xam ne dañuy fay ndugg bi supermarché ak affaire yooyu léegi yow risque bi ngay wax mooy booy mhm. amul ah, am Eldorado boobu amatul mhm. foo am na sens fii sax am na sens ndax ñu ngi fii ñëw di am xaalis di tabax di tabax di dem seen dëkk di tabax malgré situation ñuy dund mhm. comme daa nga le ma France def naa xam naa tamit nu mu demee mooy foofu noonu kon li li am Italie noonu jaay yooyu amul foofu ndax champs doo fa lal boo fa lalee gars yi jàppale Italie boo lalee ci mairie yooyu noon da ngay dàqanteeg police municipale ñuy nangu say bagage da ngay ñëw da ngay gis ku wàcc ñëw ne tey dañ maa sotti mooy li ma yoroon nangu nañ ko mm-hmm. comprends nga li la ñu lay mult mooy ay amande ba pare jël say empreinte pour nga am këyit day jafe bu ñu mayee këyit pour nga am këyit day jafe mais gars yi dañoo def da dem di for xaalis di nga lekk lu neex set na dëkk bi naaj na étage di nga dund fu naaj boo amul loo fajoo mm-hmm. dañuy wax réalité yi dañ lay faj te doo fay dara <laughs> gars yi dañuy fay lu cher mais yow am na ña nga xam ne nii ay genre association ya nga Euh, ya nga xam ne dañuy jàppale mhm. euh, maanaam néew du doole wala sans wala sant papier yeeg yooyu mhm. dangay ngay dem am na kii tamit euh, église bi mhm. Caritas ba nga xam ne day may ay yére boo bëggee lekk da ngay dem di lekk ak yooyu noonu mais loolu maanaam gars yi weesu nañ foofu am na tamit beneen façon immigration bu gaa yi war a xalaat mooy damay gis naar yi pakistanais yeeg yooyu dañuy ubbi ay kebab ay affaire yooyu associé du doo mais Sénégal dafa tàmm moom dafa moom li mu xalaat rek mooy su demee Italie maanaam di liggéey ñu koy fay wala muy jaay mhm. pourquoi moom mën def entrepreneuriat États-Unis mooru moo fa nekk wala faat faatu yi dañuy ubbee ngan di restaurant ou ay affaire di jël ay tubaab len fa mais lool nak nag ah, lu doguma la mais lool day fekk par exemple nga yor fi ben métier bo xamné tay dang koy mën bala ngay dem mais munoo jógee town bi Sénégal amulo ben métier bëgg a dem Italie wala France bëgg out lo loo fa teg loolu mooy loolu mënul ne waaw parce que damay gis ña nga xam ne dañuy jaay seen sare di jaay seen kër yi dem mhm. ñooñu duñ mën loolu mais bu fa yàgg dafa am communauté ba nga xamné ne ngay xalaat ah, di takanté comme policier yi ni nga ko waxé lool rek waaw loolu rek ngay xalaat loolu nag moom loolu il faut que ça cesse. Mhm. gars yi ñoo war a booloo association yi gars yi di wax nii lan la lan mooy seen njëriñ. Mhm. mais Sénégal euh, état bi nii. Mhm. maanaam xaalis bi ñuy wax naan fonds yeeg aide yi ñuy yàq émigré yeeg yooyu pour nga ñëw raw retour yooyu mënuñoo am ay fonds ya nga xam ne dañuy pousser gars yi nga xam ne dañuy liggéey foofu parce que tamit émigré yi li ñuy dugal ci xaalis. ay milliards yooyu noonu ñoo ñoo daanaka ñoo yor réew mi. ok foofu la ñuy ñëw. waaw waaw parce que tey wax nga condition de vie yi mu méttee en tant que immigré tey nga nekk foofu euh, di liggéey yow di di góorgóorlu di liggéey dal nek Italie par exemple wala France wala Belgique nga nek fi di góorgóorlu di liggéey tay mm-hmm. di suturlu di djel sa xaalis di ko yónnee fii ci deuk bi parfois do am lu la neex bo ñewé lolu metti na. lolu dafa metti non seulement da ngay gis nga dama dama to gaay ak xam man yaguma fa quoi 2 mm-hmm. ans yagul mm-hmm. mais da ngay gis ku def dix ans quinze ans mais dañuy nettal maanaam du ngeen investir ñu ne investi nañu Sénégal ba sonn suñu sœur suñu frère ñokoy koy lekk. benn ngoog ñun buñ toogee nii numéro sonné ñu jox ko portable bu gisee numéro Sénégal du ko jël ma ne leen lu tax ñu ne duñ jël numéro Sénégal dañ lay ñaan duñu wuyu non ñoo lay woo ah, noonu moom la ma fay dund loolu moo fa amoon te moo fam ba tey kon kay duñ ko jël ok 77 77 78 duñ ko laal 221 buñ ko jël non duñ ko jël duñ ko jël li ma lay wax ni du ay kaf du ay ah, ree ñoom gars yi ak may dégg xam nañ baax li may wax mhm. parce que dañ leen ñaan te loo may ñu xeeb ko parce que ñuy defe da nga xaalis ni koy amee dafa yomb te da ngay daj dina di décarcassé ndax gars yi tamit dama laaj benn kii ne ko mu naan li mu doon am mën na un million la mu jege ko mais bu fayee foo fay du dese dara tabax tabaxu kër yéex a tabax kër mu ne ma ne ko mais pourquoi ngay def noonu carrément il faut nga am loo denc ak mu ne man yërewuñu ma noonu lu moom dama koy bokk ak gars yi tardivement lu xam lan moo la dimbali nga am kër nga def prêt hmm. am naa benn copain nee na moom li ko may def prêt bo amé contrat am contrat prêt day fekk nga nek ci dara non bu voilà bu kon non ko am sax da ngay gis ko fay ko un million mënu euros mais xam nga né tay ki ki ki yor ay bagage di jaay di police du illégal manam clandestin yi mhm. mu ñom ñoo ñoo ëpp te ñooñu mënuñu ñooñu am li opportunité def prêt dama la difficulté pour def il ñu def prêt ñu leen koy dagg nga ñu mën a tabax parce que moo Modou ñu njëkkee jaay bi moo ëppoon liggéey xaalis. ndax da ngay ñëw jaay un million benn jour ñu lay fay salaire un million doo ko def da ngay jaay. moo tax moo moo di taaleeg yooyu gars yi doon leen topp. Mhm. dafa jamonoy lii amoon dafa xaalis bi dafa nekkoon moo naan Eldorado boo demee Europe tekki nga. mais léegi nag bokk waaw uh-huh, léegi euh, autant wax nga ko léegi euh, maanaam euh, ñu baal ma quoi mais sunu sœurs yi boo jóge woon Italie wala France gars yooyu États-Unis ñooñu ñoo fi doon bomb parce que waaw lépp lu fi baax nii ñoom ñoo koy jël mais fi mu toll nii gars yi reculé nañ de waaw dañoo reculé leen léegi waaw parce que yaa gaay bi benn mhm. problème de kayit jigéen ñi bëggatuñ loolu dañ naan damaa bëgg kuy toog di nga koy gis ndax dañuy yàgg yow da ngay am jëkk jabar mhm. mu am doom sa ginnaaw comme daa nga wala ba mu dëgër ba mu dëgër dañu am doom commencé jàng am na tamit loolu gars yi dañ da nga ciy waxtaan gars yi da ngay gis am na ka nga xam ne daa ñëw aventure jabar ñëw fekk fa Modou Modou tamit dañuy dund lu métti dañuy dañuy non seulement yow sa jabar doo am doom doo gis maanaam nit bëgg di yar mhm. am doom doo gis maanaam doo fekkee en face fu muy raamee fu muy doxee mhm. li ngay am di leen yónnee duñ ko fonk moo tax duñ jël ay numéro mhm. stress Modou Modou Modou dañoo sonte dañoo war a delloo njukkal ndax immeuble yi ngi ñoom ñoom koy ñoo koy def ay jàmbaar lañ comprends nga li ma la Europe dëgg na mais malgré ça dañuy yónnee ba man ko ba gars yi constaté nañ màggal yi bu bu amee manam dañuy wañi sax billet parce que tellement dañuy gis seen aviation seen kii bi maanaam ni muy jaree seen billet d'avion yi ni muy jaree mobiliser beeg yooyu noonu comme nga li ma la mm-hmm. maanaam moodu moodu seen force beeg seen pib manam buñu ñu ci économie Sénégal kon état bi do am fu koy faté comme naa moo tax gars yi def ben politique ba nga xam dañ leen wara dolel dooleel moodu tamit da ngay dem mais bo amé nga investir ñu bisi mais bëgg tok de ko jambour noonu ok waaw euh, gars sama side la euh, fi ci Global News ah, mais sunu frère yi nga xam ne tey dañuy songu gaal yi mu metti trop tey dangay ngay sa doom euh, xaw euh, mu mag nga am ci moom yaakaar mu waroon nekk si town bi di góorgóorlu sax nga koy gis ñu songu gaal yi des fa loolu nga leen di wax. man daal li ma gis li ma leen conseil mooy nañu jaar dem wut visa visa du ay question da ay caay visa ak affaire yooyu noonu da ngay xool procédure nga déposé bu sawul sax nekkee nga dem. ok comprendre nga li la. parce que risque bi ngay dem boo fa demee noonu dañ lay rapatrier waat nga ñëw wala clandestin ngay doon di sonnaat bëri dem nañ càng ay libi ñu bëri ñu ngi leen di def ay góor sax di tëddee góor def nañ ay esclave gis nga ni leen di dóoree boo mhm. xoolee documentaire yi xam ko lu garaaw ba dugg Europe boo duggee Europe nga amaat beneen difficulté parce que clandestin da ngay làqatu quoi ñu lay jàpp ngay làqatu di kii doo am lu la gënal da nga naan lii est-ce que na ko mhm. jëlal visa nga dem bien vrai que maanaam émigré jamono yonente ba tey da gis ki jógee mooy gàddaay ba léegi dafa am day développé dëkk mhm. comme nga li ma la wax mm. mënuñu ko fay dindi mais lii ñuy def nii di dee pour lan ñaata ëpp na 500 morts nit ñi di dee sénégalais di dee nii non seulement day yàq dëkk bi comprendre nga te li ngay def jaru te xaru sëriñ bi wax na ci ñëpp bi di dee noonu jeunesse bi nga xam ñooy avenir beeg yooyu noonu sëriñ bi wax na ci xaru mm-hmm. nañ bàyyi loolu teg ko fële maanaam man mii wax ni du dem Europe parce que dem Europe du ñu maanaam Europe parce que amna ben way mo moo c'est très important mais mo dougal foofu non mhm. gaay di wax Europe da métti Europe li mo len bàyyi len li ngeen wax woote da ne Europe. Mhm. mo may luma am Sénégal n'a ma rien donné. Mhm. Sénégal dama fi nek awma keur awma auto ma ma dara fi amna keur amna auto xol oto immeuble tabax Sénégal keur te Europe moo ko may. bu len xalap yalla bëggul loolu. kon Europe paaka ñaari boor la moom lay wax ci sànq bi noonu. mais difficulté da nga koy wax. ok mais est ce que moom toog na aussi. non stable Sénégal loolu. non dafa toog Sénégal mu dëgër ba jëm mag ëppal trente trente cinq ans dem fële sa wërsëg déggoo li ma la da ngay góorgóorlu mais maanaam dafa am la nga xam mooy gaal gi ngay wax mooy xar bi. yow boo amoon visa da ngay dem soo demee da ngay jéem wut kayit mm-hmm. xool noo ci ciy génne Sénégalais dafa muus dañ leen a faan. damay foofu damay gis naari gaari di jaay gars yi di jaay yeneen Afrique dugg ci yeneen Afrique wala Gambien yi wala yeneen dëkk yi di dugg ci yeneen liggéey mais mhm. ñu ne sénégalais yi marocains yeeg yooyu ñoom peut-être nañ dugg ci ay drogue ay affaires mais Sénégal ñoom dañoo aposté maanaam dañoo juste duñ dañoo nangoo liggéey cagatu bi ngay gis tamit prostitution bi musuma gis sénégalais bu jigéen buy def loolu bu koy def foofu waaw daayira yaa nga fa kër Serigne Touba yaa nga fa am pagaille gars yi dañuy daayira dañuy julli tabaski beeg yooyu. daan doole Sénégal moom xame Sénégal ay jàmbaar lañ ko waaw mais organisation moo des ak lii moom jaru sax nekk de wax lii dañ ko fee war a jëlee ku ñu koy def dañ laa war a jàpp. booy buy naan da ngay duggaal dañ la war a jàpp tëj la ok parce que xaru la. jaajëf euh, jaajëf dinañ ñëwaat ak yow. si beneen émission parce que album bi euh, waaw sànq am na loo ma. immigration clandestine waaw immigration clandestine mu nice trop. xam naa bu génnee macha allah gars nañ ko képp kulu affaire bu nice lay doon donc euh, tey sama site si global news nan nga ko gisee. non dafa nekk benn kii progrès bu mag jeune boo ko gisee muy dem. Mhm. da ko war a pousse. te tamit lii war naa chaîne bi war naa gën a màgg kon yeneen chaîne yi ni ngay gisee yeneen chaîne i yi nekk Dakar ni ñuy propulsé il faut que tamit région yi di am fit def te ma wax dara ñu dëkk Njaan ak nekk Jurbel tey tey image yi bu génnee macha allah nga seetaan émission bi lépp fii lañ ko joobee. man xama nga dama Thiès waa Thiès laa. Mhm. dama nekk ñaari tànk waa Thiès laa ba pare yoro fii xam nga. nekk Italie mais man waa Thiès laa Thiès. Thiès tamit maa ngi ay Thiès Info ay précis maanaam en ligne dañ faa bari ba pare développé mhm. soo ñëwee ba dugg fa da ngay waaru da ngay gis que am naa benn commune mo seelati nee na am naa quinze employés mhm. quinze employés am ay oto ay voiture ay lépp pourquoi pas ñi ñii dañ leen war a di subventionné presse en ligne yi nga xam ne ay jeunes lañ ba pare di jàppale jeunes waa di créer loolu mhm. mais ci kaw ci kanam waa leen a affaire bi avancé ba dem si sur le plan international ñoo far mais nag instant corona waaw dañoo nekk ci coronavirus bi waa xam nga faaw ñuy laal si zel yi zel bi waaw di ko diwoo dégg nga génn di takk masque mais dama koy bëggee ah sama caméraman Mormar ñu ngi nag suñu deuxième numéro sama say tay parce que euh, ben instant amna fuñ ko téye mais xam nga ñun dañoo bëgg bu ñuy jopp aussi job bi nice mm. bëgguñu di duggal ni pour duggal rek affaire yi di bëri mais dañuy duggal lo xam tay day am sens ci askan wi ñukoy koy bu baax ku lu jaajëfal nañu bëggee